manière général secteur télécommunication ci Sénégal mun naa ni mu ngi dox wala egg na foo xam ni ñëpp war nañ ko mën a rafetlu ci Sénégal d'accord nañu ni Sénégal xarañteem ak taxawaayam ci mbiru télécommunication nekk na taxawaay bu am solo mun naa ni amul ñu lu ñuy jéggaani ci expertise ci mbiru télécommunication ci Sénégal li ci nekk rek mooy dañu constater que infrastructure yi. mooy jumtukaay yi yi nga xam ne moom la ñuy utiliser ci Dakar ak yenn dëkk yu taax taax yi la gën a yem que ci biir réew mi wala ci dëkk yu nga xam ne ñoo gën a sori te président de la république dafa wax inclusion sociale mooy nit ñëpp dañu war a tolloo nit ñëpp dañu war a yem kon lu ñu mën a def ba nga xam ni fu nekk nit nekk ci Sénégal mën a bénéficier wu des mêmes services ki nekk ci dakaar ki ne ci Thiès ki ne ci Kaolack ñu def ko donc ci loolu nag dañ ciy invité encore opérateurs yi ñu gën a dugal seen loxo ci loolu nga xam ni redéploiement bi ci territoire nationale bi yëpp la war a egg mais mu bañ a am gox yoo xam ne dañ naan rentable na wala rentable du ñu fa egg ak yooyu loolu war nañu ci ñun ñëpp ñu liggéey ci mais loolu liggéey gën a yombal mooy infrastructure yi ñu koy bokk mooy soo amee antenne fii am benn fibre bu jaar fii kii am benn fii ñu boole ko taxale ko ba nga xam ni lépp lu sénégalais soxla ci connectivité dina ko am suñu mutualiser les infrastructures moo gën ku nekk rek yor sa bosu bopp daal ni du ma bokk ak kii te yow peut-être li lay manqué pour nga am benn service du bëri loolu nag liggéey la boo xam ni ñu ngi ciy liggéey ak ñun ak waa ARTP yëpp mais également ñun ak opérateurs yi di ci waxtaan pour ñu trouver un compromis cadre boo xam ni moom la ñuy defee mutualisation ak euh, gestion partage des infrastructures muy mbir mu am solo boo xam ni dina participer ci aménagement numérique territoire bi ndax président de la république dafa bëgg fu sénégalais nekk mën a am accès au service de télécommunication électronique nga bëgg a foo ne ci Sénégal mun a téléphoner mais fu ñu la bëgg a foo ne ci Sénégal ku la bëgg a jot mun la jot beneen bi foo ne ci Sénégal mun a am internet foo ne ci Sénégal également ñu mun la jot ci internet te loolu mooy équité territoriale mooy équité sociale. mooy nit ñëpp dañu war a tolloo nit ñëpp war dañu war a nekk benn te loolu dafa naan dafa jaadu ñu ñëw waxtaane kook opérateurs yi waxtaane kook ñi nga xam ne ñëpp ñoom lañ ko séqal ci mbiru télécommunication mais également ñëw naa Expresso pour féliciter leen euh, encourager leen ci li nga xam ni njiiti réew mi nangul na leen ko mooy ñu jox leen licence 4G ndax comme ni ngeen ko xamee Expresso bi muy door ci Sénégal daf fi doore Euh, way wu rafet mooy 3G mu ñoom rek ñoo ko fi amoon ci 2008 2009 mu nekkoon service de qualité bu ñu yóbboon ci kaw ba ñëpp dañ leen doon dañ doon wut pour rattraper leen fukki at ak benn mun na wala même ñett bi ñu ñëweek léegi tey ci technologie boobu rek lañu yem te defe naa ni xam nañ ni technologie bi ni muy avancé dafa gaaw ba tax na dafa jaadu woon ñu waxtaan ak ñoom pour que ñoom tamit. ñeneen ñi nga xam ne dab nañ leen ba raw leen ñoom it ñu def effort pour tamit tolloog ñoom technologie ndax ñoom seen clients yi dañ ko soxla réew mi daf ko soxla ba tax na kon ci loolu liggéey nañ ci ak ñoom liggéey bu am solo ba tey nangu nañu <clears throat> def ay effort état bi jàppale leen ba accordé leen licence 4G muy licence boo xam ni nag mun naa ni dafay indi ci Sénégal euh, nouveauté ndax dina tax opérateur yépp tolloo même niveau technologie ndax loolu mooy tax ñoom ñëpp service yi ñuy joxe service yi ñuy jox seen clients yi mu nekk au même niveau même niveau de connectivité bi même niveau de service yi mais surtout qualité service et c'est important donc moo tax njiitu réew mi donc daan ñuy jox ndigal daan ak ARTP pour ñu accompagner Expresso pour ñu mën a am licence boobu dafa jaadu woon tamit ci tournée yi ñuy def ñu ñëw ndokkale la mais également wax leen ni ci ni ko njiiti réew mi waxee ni mu ñu ko tegtale dinañ leen accompagner noonu ba loolu mu effectif mais seetlu nañu ni ñoom anticiper woon nañu mooy jëloon nañ ay matukaay pour que sites yi nga xam ni ci la ñu war a redéployer la 4G commencé woon nañ ko installer te am nañ ci ñett téeméer ak juróom fukk donc ba tax na kon loolu jaadu woon na aussi ñu nit ñu xam ko mais également ñu leen ciy ndokkale di leen wax ni également loolu dafay participer ci aménagement numérique du territoire Sénégal mooy li nga xam ne fa la ñu war a jumtukaay yi war a yóbbu pour que sénégalais yi fu ñu mën ci doon nekk am service de télécommunication numérique bu am nekk qualité ñu am ko te loolu par des investissements lay doon te ñoom vraiment ñoom anticiper woon nañu ci projet yu mel noonu danañ leen accompagner pour que nekk loolu nekk une réalité beneen bi mooy dama doon profiter aussi ci occasion bi di leen wax précaution aussi boo xam ne am nañ ko ci nguur gi te loolu mu lié ak euh, mbiru téléphone yi ak internet mooy jël en charge paiement bourse étudiants yi ci Sénégal comme ni ngeen ko xamee tey tension yi nga xam ne souvent dañ koy constater ci dëkk bi wala ci Sénégal bokk na ci li nga xam ni mooy mbiru fay paiement bourse étudiants yi te paiement bourse yooyu dañu xalaat ni ni àdduna di doxe ni mbiru xarala yi amee solo mooy économie numérique ak inclusion financière ak monnaie électronique fi mu toll tey ci àdduna bi war nañu mën a par benn clic ñu fay ñaar téeméeri junni étudiants yépp ci Sénégal yi nga xam ni dañu am bourse te loolu day day nécessité collaboration ak les opérateurs de téléphonie donc muy projet boo xam ni dafa am dafa dafa dafa président de la di daf ci bàyyi xel donc pour que vraiment ñu xaw utiliser jumtukaay yu bees yi pour que yenn problème yi nga xam ne dañ koy am ci réew mi ñu mën ko ci saafara donc te dafa jaadu woon kon ma ñëw partager ko ak ñoom déjà wax naa leen ni euh, Orange déjà mu ngi fay fukki junni étudiants ex Free mu ngi fay juróomi junni ñoom tamit il faut ñit ñoom c'est vrai nekk guñu euh, opérateur buy émettre monnaie électronique mais mën nañu xool nan la ñuy defee par une plateforme donc ak le Ecobank bi nga xam ne pour le moment moom la ñu jox mbiru bourse yi ñu xool une plateforme boo xam ne ci la ñuy jaar ñoom it pour fay un nombre de d'étudiants mais li ñu bëgg à terme mooy képp ku am bourse ci Sénégal état Sénégal di la fay ñu mën ko jaarale par la monnaie électronique ndax la monnaie électronique mooy monnaie wu avenir àdduna bi. adduna bi foofu la jëm te li koy joxe mooy mbiru télécommunication mooy mbiru téléphone yi kon kuy opérateur de téléphone yi war nga anticiper ci loolu war nga ci bàyyi xel ndax àdduna bi day dox jëm foofu donc defe naa ni loolu la doon wax partager ak ñoom aussi di leen wax euh, suñu disponibilité ci ministère bi accompagner leen ci projet yi nga xam ni am nañ ko pour gën a yaxanal gën a yokk ci seen seen seen développement ci Sénégal di leen di wax ni également euh, partenariat Expresso ak Sénégal dafa nekk loo xam ne partenariat bu particulier la ndax dafa nekk entre société yoo xam ni société boo xam ni ci biir Afrique la juddoo donc Soudan la juddoo fii la euh, développé woo mais également dafa am confiance ci beneen réewu Séné Afrique muy entre Soudan ak Sénégal te loolu ñaari njiitu réew yi ñu ngi koy rafetal moo tax keroog président la République jox ñu ndigal doon ni jot na lettre président Soudan que nañ jàppale Expresso pour que vraiment li nga xam ni bëgg nañ ko ci Sénégal ñu accompagner leen ci. li jëm ci prix communication électronique yi mooy prix téléphone yi mooy ak internet bi dafa nekk loo xam ni dafa préoccupé dafa nekk préoccupation chef de l'État defe naa ni su ngeen seetloo bi ñuy joxe grand prix du chef de l'État pour l'innovation donc et la recherche seetlu ngeen li mu ci waxoon. pour que ñu mën a liggéey ci luy wàññi koowu internet bi ak communication électronique defe naa ni loolu bi ko njiitu réew mu waxee man solo naa sama dàll dem ba Sonatel waxtaan ceeg ñoom ba ñu jox ñu ay assurance ak ay garantie ne ni ñu ngi ciy liggéey bien que wax nañ ñu ñoom am na luñ ci wàññi woon am liggéey bu am solo buñ ci def opérateur yépp yi ma dajeel également muy waa Free démb muy waa Ayu ak waa Expresso waxtaan naa ceeg ñoom. ba ñu wax ñu déjà liñ ci jot a def mais ñu leen di ñaaxaat encore pour ñu gën a bàyyi xel ci loolu ndax jàpp nañu ni internet bi encore cher na Sénégal communication électrique bi nu mu tudd téléphone bi cher na Sénégal mais surtout aussi communication bu am bu nekk de qualité et loolu dafa am solo que ñu bàyyi ci xel moo tax may encourager vraiment investissement yi nga xam ne opérateur yaa ngi koy def pour offrir au Sénégalais ay services de communication électronique de qualité et loolu ñu ngi leen ci gën a ñaax mooy aussi bien nag ci biir ci taax yi mooy les villes que ci biir réew mi aussi ndax dañu seetlu ni quand malheureusement biir réew mi xaw nañ ko sàggane tuuti te donc mbiru équité équité sociale ak équité territoriale dafa nekk loo xam ni dafa njor njiitu réew mi ba tax na war nañ leen ko gën a fàttali pour ñun ñëpp ñu liggéey ci pour que fu sénégalais nekk ci biir Sénégal mën a am internet su ko bëggee mais également mën na def appel téléphonique ni mu ko bëggee ci ay anam yu jaadu loolu mooy kàddu yi di sant ñëpp di gërëm.